weekend start comme ni ngeen ko un un weekend qui commence weekend start start yëpp dañuy ci weekend bi fan euh, c'est sur la TFM Stress c'est tous les samedis de 11h à 12h30 ma ne ñàkk clip bu show événement ak lépp rek commercial pourquoi pas leen ñëw ci samedi ak No Stress sur la TFM weekend start ni ngeen ko déggee noonu la demee weekend boo xam show